salaamaaleykum gars yi nii na leen te leen ak jaama ci Sen Sport 221 dañu koy door rek match bi doon dox diggante Arsenal ak Everton bu Idrissa Gana Gueye ñu gis Everton dal ci am victoire benn bal ci dara match boobu nag ki nga xamante mooy Idrissa Gana Gueye titulaire la woon mu def sax match bu rëy dinañ ñëw léegi jox leen li nga xam ne jot na ko wane ci jogante googu waaye li nga xam ne mooy jot a ja moo mat a jàngat mooy Everton jamono bii am nañu victoire bu njëkk gannaaw lu toll ci ñett jàpp ñeenti yoo xam ne dóoruñu kenn ci English Premier League bi depuis octobre ñoom waa Everton gañowuñu benn match ci wàllum championnat ji ñu dal di gagné ki nga xamne moy leader bi di arsenal bi nga xamne momit September depuis septembre ken dooru ko mbir mi na de everton avant d'aller la nekkoon bala muy jouer contre arsenal tay ji ñi di arsenal nek ci bop classement bi depuis ñaata wer depuis septembre la la wax arsenal kenn mënu ko wacce ponk liñ fi dajal yépp ñu ci mom dara waaye nak ñu gis tay everton bi nga xamne avant d'aller la nekkoon ganna bi ñu dàqee seen entraîneur bi seen dice ñëw premier match bi mu jouer mu dal ci am victoire ben bal ci dara voilà ci kaw ñi di wa arsenal kon bi moy ñaareli défaite bo xamne arsenal amna ko ci championnat bi ñu ko doré saison

ñaari taakal voilà duel yi nag moom yëpp ko dafa ko daal di lu toll ci ñett euh, fois voilà fukki ballon yoo xam ne daf ko dem foqati ji dal di koy jox équipe am dal di koy jox partenaire loolu def na ko lu toll ci fukki yoon kon match bu rëy la def moom Idrissa Gana Gueye ci jongante googule waaye nag victoire bi nga xamante Everton am na ko tey jii dafay jàngat rek li nga xamante ni mooy Arsenal tukki yu bon yoo xam ne mu ngi koy tukki foofu la ca Goodison Park Goodison Park mooy stade bu Everton bu ñu seetloo juróomi match yi nga xamante ni Arsenal dem na foofu la ca Everton juróomi match yi mu mujjee joué foofu la ci am yi ci des yëpp nañu ko dóor Arsenal juróomi match yi mu la ca Everton dama ne ñeenti defet la ci dal di jëlee ak benn match nul kon benn poñ képp la ci dal di jëlee yi ci des yëpp dañu ko ko dóor kon tey ji mel ne ne Everton dañu jaar fa ñu daan jaar rek ñi di waa Arsenal lu la ci goudi sen paak voilà dañu koy defal bagage kon tay ji lool moy li nga xamne mo jotté xew Arsenal nak loolu moy defet bi nga xamne amna am ko du japp du ñak Manchester City dina ko ñaanal bu baaxa baax ndax kat yag na ko top di dakk te mënu ko jot kon ji li da fay nek de nga mam li ñu one step closer voilà kon Man City dina am ben jéego bo xamne dina ko gëna jégé ñi euh, Arsenal gi nga xamne ne bu yag ba légui ño nek ci bop classement bi gannaaw loolu ki nga xamanteni nek moy de nga euh, Mamadou Balde Mamadou Balde wi wala Mouhamadou Balde doomu rak la ci ki nga xamne moy keta Balde voilà ak kon bi ci na du ñàkk mooy matcham bu njëkk wala mu bokk ci ay match mi njëkk tey ji but boobu mu dugal nag moo may li nga xamante mooy U19 bu Lazio daal di am victoire ci li nga xamante mooy jongante googu nee nañu daal xale bu xarañ la te war nañu ko bàyyi xel moom kii di Mouhamadou Baldé xam naa ñu kon di topp ay mbiram ba xam fa lay mujj ak équipe boobu gannaaw loolu tam ñu gis ne Greenwood bi nga xam ne jàpp nañu kat ñii di Manchester United ñoom pare wuñu ngir dal koy dugalaat ci seen équipe boobule moom ñaar fukki at ak benn képp la am nag xale la de waaye kontaanul nag ci taxawaay bi nga xam ne Man United am nañu ko ci moom jamono bi nga xam ne mu ci jafe jafé ak walu yoon néna dal daal gars yi taxawuñu ko dara leen léegi nag loolu modelusi. na teg di Man United am ci ño xamne ne bëgguñu mu delu ci moo mom tak nay bagasam di déglu Man United ci investigation yi ñi def ci mom bu ñu ci mom dal bare ko fi mëno fi dugg mu takki bagasam su ko défé dem Chine lolu moy li nga xamne tay jikee di xibaar dal biral wala dawna yaram lolu nak Manchester City mom jamono bi dañu bëgg signé ki nga xamne mom lañuy wax Mac Alex Alister Mac Alister bi nga xamanteni mom moy numéro 10 Brighton bi wala xolé bu xarañ la yéen ngi ko doon gis ci coupe du monde bi mom ak ñi di wa Argentine wala mu nekk gone goo xam ne jamono bi dañu ko bëgg si ngeen mu remplacer kii di Ilkay Gundogan bi nga xam ne moom contrat ak Man dafay jeex si saison bi su jeexee kii dafay dem contrat ba day jeex léegi nag McAllister bi la bëgg mu dal di ko remplacer foofu la ci Manchester City bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi Manchester United nag ñoom tey ji doon nañu football ci English Premier League voilà ñoom ñu doon euh, joué seen diggante Crystal diggante ñaari équipe yi te loolu yëpp dégg maam indi daal ay carton jaune yaakaar naa am na ci ñaar jàpp ñett ñoo xam ne am na ci carton jaune waaye ki nga xam ne mooy Casemiro gannaaw bi nga xamante dañ koo daane voilà joueur yëpp daw ñëw mu dal di dégg maam indi foofu ay jàppante ci kaw loolu nag mu am lu mu def ñu ne dafa dal di xooj voilà benn joueur ci nga xam ne ñoo ko dàq ci nga moo ko génnee ci jongante googule gannaaw loolu tam dinañuy wax ci ki nga xamante ni nag mooy Sébastien Haller moom tey ji bi tax la ak Borussia Dortmund mooy premier but officiel boo xam ne daal dina koy joué daal dina koy dugal voilà ci match officiel xam nga bu ngeen fàttale ko temps yi ci ginnaaw doon na dugal ay but waaye loolu ci match préparation yi la woon moom nag bi ñu ko signé ak li nga xam ngeen ne dafa tëdd li ci ëpp ko waxee ne am cancer mu nekkon mbir mu daw yaram yalla dimbalé ko mu daldi di ba wër dellu ci wat ci terrain bi té saison bi jéxul tay ji nak le joueur daldi marqué premier bi ci match officiel mu nekkon nak mbégte mu reuy reuy bi mu dougalé bal bi ñepp amone mbégte mu reuy ci li nga xamanténi mo mooy jogante googu moom Sébastien Haller bi lé gannaaw bi mu amalé retouram Ismaël Sarr l'international sénégalais mom tay ji bi tax la de ak këlëbam boobule di Watford mom nak ñam jamono bi man nañ wax né amna lu tollu ci juroom ñetti bal ci saison bi ak équipe am ak quatre passes décisives ñom tay ji dañu match nul 2 bi partout sen seen diggante ak ñi di wa reading la won reading moy club mamadou lum jaay ak amadou mbeng ñom ñaar ñep sax titulaire lañu won amadou mbeng ci défense bi lum jaay ci milieu bi ismaila sar mom daldi di ben but voilà lolu may ko mu am juroom ñetti bal ak ñent passe décisif bi ñu dooree saison bi ak légui liverpool mom tay ji man nañ wax ne dafa kaléti liverpool mom jappuna né momit ci jafé jafé la nek ndax ka tay ji dafa daldi di am défaite bu 10 sax ñetti bal ci dara nako wolverhampton daldi di duma voilà kon tay ji ñi nga xamante ne moo di dafa japp ñi di wa liverpool kon maas tey say mbir

tey ji gannaaw defet bi ñu am seen digganteeg Wolverhampton ki nga xam ne nag moom la ñuy wax Ibrahima Wadji Ibrahima Wadji moom it tey ji bi tax la de ak équipe bam di Saint-Étienne voilà ci match boo xam ne ñoom amoon nañ ko ci wàllub Ligue 2 ñoom sax ñoo ci am victoire waaye Ibrahima Wadji moo dugal ñaareelu bit bi nga xam ne ñoom waa Saint-Étienne am nañ ko ci jogante googule mu nekk dégg victoire bu am solo Federico Valverde joueur Real ne Manchester United dañu ko bëgg ne nañu daal Valverde rek la ñuy signé ji ni mooy dégg nga jeexee dinañu def Touba dal di ko si njëgam nag ñu ngi koy xayma ci cent millions d'euros bu ñu sukkandikoo ci transfert maquette bi voilà am ci jamono bi moom nag jàppoon nañ ne ndax Ancelotti da ko fonk fu ne la koy footballoo milieu de terrain wala mu comme excentré wala mu ko sax six léeg-léeg bu amee jafe-jafe voilà jamono bi na Man United danañu moom dañu ko bëgg comme dañu defoon ba teg loxo ci Casemiro amaana dinañu ko def ba dal di ci loxo